grand combat grand combat arbitre baa ngi leen di xool ndax niin nañ wala niinuñu taq nañ wala taquñu waaye ku taquñu fomp la ku taquñu fomp la arbitre baa ngi leen di xool ñoom ñaar asaan ngeer bu zap ngeer bu zap mi ngi jóge si Boynar naar bu yaraax la mujjee daan beneen de mu ngi jóge si Birame Junior saan ngeer bu zap ngeer bu zap at belende arit baa ngi wax ñoom li lamb nangu at li lamb bañ saan ngeer bu sab at belende de sifflé na eh, diggante ngeer bu zap diggante ngeer bu zap at belende diggante ngeer bu zap aca buur ngeer bu saf ar belende esaan ñu ngi noonu ngeer ar belende esaan belende gi tiide ku rek dem esaan esaan sele ngi noonu poti sele esaan ngeer bu saf ar belende waaye capitaine ngi noonu alliance fodem bisaan waaw booy campement yaa ngi noonu saan beneen daan nga eh, eh baat door bu daanu doom baat door bu daanu ay waay door na ko si nampatal nampatal ay waay door na ko si nampatal nampatal la ko door oh ay waay julli na ay ilaha illallah si nampatal la ko door nampatal loolu ñuy wax nampatal fii lay nekk si bopp nampatal si nampatal la ko door nampatal fii lay nekk si bopp nampatal <laughs> ndeysaan dafa door beneen na mu daanu da <laughs> daan Pelé Pelé da ngaa dóor mu daanu comme nam defoon nga nam defoon Aly Mbaye Nder la ko def da ngaa dóor si nampatal nampatal xam nga nampatal mooy boo nekkee liir mais dañ la forosel fii lay nekk ndeysaan Pelé dégg noonu Pelé dégg noonu ndeysaan xale Grand Médine baa noonu oh l'homme des Plicao oh.